déggantewu teu ci ben mbeur amul mbeur bu yewo faas bu ma ci deugantel menn mbeur la ci deugantel ta man ak mom kuti ba mbow ki ko yor man ak mom ño fondo muy double moteur khadim sama turondo man ak lambu làmb wuñu lambu tamit wu ko ak aada di wax manam supporter yi saa su ne nañu gëna bayyi seen xel ñun ñep man awma lamb mbeur bo xam amna ci mom sens interdit amul sama lepp muy bébé jeen aada fas bébé jeen fas double moteur ibu avio jeen kayre mbañi kayre ku ci taxaw ak man danga may nuyu si jamak ak salam mon tontu la si jam ak salam laaj nañ ko ci ndeysaan non kooku nit la xam nga nit mu nga nek nit ni nek nit dafa yombul quoi Balla Gaye rôle bu mu def amon na grand yo xamne ñoo gëna a aada fukki ak juroom ñaar yoon yo xamne lañ ko waron def te defu ñuko Balla Gaye geste bu mu def amna mbeur yo xamna xam ne ne tey ñoo gënoon nit la barki sayidina muhammad mbeur la wanta yorul xolu mbeur Balla Gaye boo gis man la subaay nga seen ko nga xam ko wala mu xam la 32 dame ngay ñëkke gis. daa lu dundal Ada Fass xam te ko gis. non wax deug sa yalla lolu mom foko natu wessu nako xam nga la moy problème doom adam nga yegg ni te wante nga yëg nit mu yëg la loolu am nga too man la suma ay fayam ñun dañoo am loo xam ne ne ñun manqué wuñ ko Fass Colobane Gueule Tapée da mun a wax làmb tëj boole woo ci Fass amul mbër boo xam ne ne nekk na Ikira Fass jamonoy Sadio Ndiaye bii di simb bi muy nekk Ikira Fass fekk na ma Ikira Fass ñoom Mama Sonko ñoom Giri Bordeaux fekk nañ ma fa ñoom Laay Ngom Zallo Tafa Gueye tamit dafa war si ñun ñun ak ñoom ñu ñuy nemmeeku waaw bien man bi may xaadim ba léegi commencé ànd ak Ada Fass kuti ba mbow benn lamb laa musa gis seen loxo fësi muy contour Zarko contour Zarko bii passé laa musa gis waa Fass seen loxo fësi amaatul leneen après coow day am rek ñu profité taxaw wax wante na tamit ñun ay xale lañ ay tout tànk lañ jiitu nañ ñu si làmb ñoom tamit ñoom suñ jëm bopp ñoom li ñuy woote cent pour cent bi yéen ngi ciy dégg est ñun bokk na boole nañ ñu si ñun. mooy 1000% bi 1000% bi. ñun boo dañ ñoo see boole. mais tamit est-ce que nekkul ndax gis nañ ni Ada Fass euh, Diène Kairé mi ngi war a bëri ki nga xam te ne moom Zarko. ñu bari yaakaar dafa dem ci camp Zarko te Zarko bi nga war a bëri Diène Kairé est-ce que. Diène Kairé Ada Diène Kairé Zarko bi nga wax Ada Fass si jëmi boppam Diène Kairé la faral ñun du ñu daw làqu aada amul ku nekk ci ginnaawam di daw laaku amul munul nekk avance su Zarko tey bu ñëwoon tey tey tey tey tey tey ñu dugal ko suñu poste séddale ko suñuy waajur yi Zarko moo may dégg moom ñi mu nekkal ñëpp kuti ba mboow man ak ñoom ñoo doon dundandoo ay nattu sa avance bu ñëwoon tey tey tey tey ñu jël ko séddale ko aada xam nga kan la fi bàyyi hmm. ku yeewoo Fass Colobane Gueule Tapée Médina hmm. ñooñ la fi aada bàyyi Grand Dakar. kon yéen ci ginnaaw Diène Kaïré. li ma la wax xanaa. Diène Kaïré bu soxla woon laa la wax eh Diène boo ñëwee ñun staff bi jaay ñu bologu billet. barki Seydina Ousmane Mbacke Noreyni jaarale ko si xaarim taalibe loo indi si bologu billet ñun suñu jëm bopp ñu def suñuy pexe jënd ko. ñun amuñu dara lu dul Médina la ñu am Fass Colobane Gueule wante supporters yi saa su ne nañu bàyyi xel. man aw ma sens kenn du bëre ba ma jënd billet. damay ñëw jël sama billet dem sama yoon koñ bu si nekk xam naa si mbër. bébé jéen a ngi ni open press am aada dem na fa ñaari yoon wante tay da ngay dégg lamb lo xamna lu nekk ay sens contraire. ngi nan ay bébé jéen ak ada sax. mais tay gis na ko. njit yalla koy fal. barki Seyna Ousmane bakki Giri bordo rakam ño doon jangando Ndar mawdo Jonn Giri kuti ba mbow la la wax luma perte ci lamb Giri momako xagn barki Seyna Ousmane bakki nooree ne bima yaakar kasso kaso teknasi Giri bordo Balla dañ ma dakh ba Gris Bordeaux Balla Gaye Gris Bordeaux Balla Gaye moo gën a métti samay mbokk ku si nekk loo indi dama la naan jëndal ma dàll jëndal ma ensemble jëndal ma lii ak lii bi ma déggee ne Gris Bordeaux Balla Gaye da kaa duma duma yu métti damaa dof feebar naa si biir kaso bi deux mois ngir bëgg ngir amul lu mu ñu jaral sama tàng si làmb bu naroon njëkk dam Gris Bordeaux baabooy amitié kon xam nga ne loolu ñun cent pour cent bi la ñuy dund ñun lu ñu am Fass Colobane Gueule Tapée maintenant Grand Dakar ko gënal aada aara buñ ko joxee avance mbër bu jugee banlieue barki Seyna Ousmane Mbacke Noreyni ne yàlla bu ma fekk roi des bu xalaatee xalaat ma dog ak moom àdduna ak alaaxira. kon bu ko indaatoon avance waaye léegi léegi léegi nga ne ma bu ko fekkoon si biir prison bi léegi ñu waxtaanee ko rek mu ñëw dama naan leen valider leen. su bañee. déggoo li ma la ak moom àdduna ak alaaxira maay tànkam maay kanamam maay ginnaawam du xalaat dara. mais tey ban message nga ah, allah am nañu yaakaar ne 23 dina génn est-ce ngeen pour récupérer seen doom recadrer ko mu mel ko ni doom suñu yàlla mayee wér ak fekk ak tal ba borom bi def lii gën ci kattanu Serigne Touba incha allah rabi muy maar mardi la 23 suñu doom bu ñëwee ak jàmm ak salaam ba ñu toog waxtaan ak moom si jàmm ak ñu defar waat ba pare moom mu ñibbisi. moom soxna la am amul gelle soxna la am dañ kaa muur si farat ak sunna moom na ñëw dëkk si. ñun ñoo talatul pet petoo. daf ñuy sonal quoi. na ñoo talatul pet petoo. daf ñuy sonal. aada mënul génn ba nit na la ay eh, aadaa ngi fii man la ñuy woo man maa mujjee woo booy yi te damaa sonn dama yor jabar yor ay doom. <laughs> bàyyi sama yaay dakaar <laughs> eh. aada moo may dugal Ndakaaru Fatma jaw barki Seyna Ousmane bu dul làmb bugguma Ndakaaru bu ma fa duggee sama yaay laay xool naxanteeg moom namp si moom jox ko wecci dem ma yon waaye bu dul aada ndakaaru fu mu xam na jëm aada moo tax man ma xam làmb moo tax may dund làmb ñaata doomu aadama ñoo may woo si affaire làmb danga may wax ma ne la ciment laa benn yoon laay tooy boo ma kuulee du ma jàppate dara ki ma jàpp rek laay jàpp su bàyyi woon tey ma bàyyi tey ñun aada rek la ñuy topp barki Seyna na Mbacke Noreyni ah. bébé Diène ah. Mang lay nuy dila fay barki Seyna Ousmane Mbacke Noreyni bi yaakar do jeen lo yotu su yodu Serigne Touba basirou si barki Seyna Ousmane mbake Noreyni yàlla na la suñu borom tax bebe jeen manam musuñu manam li betuma ci bebe jeen manam li li barki Seyna Ousmane mbake Noreyni bi ma yaakaar bettuma ci mom bebe jeen ñiko yar man si la bok bu muy nek xalé di nek tout tank di ri riseng di nek buuse comme tay ci man grand yi ko yar ñoma barki sëy naa Ousmane Mbacke nooree bi ma yaakaar aw ma sens interdit wante geste dafa rafet ci doomu aadama ndaxte tey ndaxaaru bëri na bopp de Serigne Ndiaye 2 bébé Diène double moteur Diène Kayre Mbañi Kayre ñun ñoo mujjee Ibu Afia ñun ñoo mujjee wande njiit suñu borom moo koy dogal ci doomu aadama barki sëy naa Ousmane Mbacke nooree ni aada defagul ci làmb cinq ans cinq la gars di wax defu ko fa am nañ fi feebar boo xam ne ne dëkk bi fépp la ñu tëj boo calculer deux ans yi manqué na aara kon trois ans la def ci làmb ak li ko suñu borom jox ñun saa su ne dañ ñaan yàlla na leen borom bi defal li gën si ñoom te gën si ñëpp roi des arènes bu nekkee fii bu ñu neexee tiitaru Diène Kaïré ko yor suñu neexee tiitaru Bébé Diène ko yor suñu neexee tiitaru Ibou Afia ko yor suñu neexee tiitaru Médina bi la Fass Colobane Gueule Tapée Grand Dakar ñun topp ñun nit comme banlieusards yi wax ñun ñoo leen gën a téppéeral barki sey na Mbacke nooyu ñii dar mbëri mbëri laa la nga génn ci Balla Gaye eh, boo ci génnee Balla Gaye eh. laa la wax boo ci génnee Balla Gaye génn ci Modou Lo ñii nga xam ne ne lépp si palmarès su làmb koo ci wax mën na la man moom ñoo nekkoon kaso waaw ñi leen dar ah, ñi leen dar koo ci wax kuti ba mbow ñii dalal nañ leen ñii ñu dalal leen ñii ñu dalal leen suñu kanam kon aada léegi jël dem rek lafa am. Ah, day jël rek dem ku si nekk ak sa sarax bi ñu la war a saraxal. am solo yal yàlla defal tawfiq ak taysir. alors kontaan naa si yow. barki Serigne Saliou Mbacke maa leen raw. leen di dékk micro ñoo xam ne nag xamuñu aada faas dafa metti si ñun. sama yaay bi ma sukk jur barki alxuraanul karim keroog dama doon jéngoon ak moom si affaire aada dégg nga lii journaliste yi wax ma ne ko du dëkk